gars yi ku dugg rek nga partagé mu yaatu ma tàggatoo ak yéen guddi gi dugaat souterrain rek nga partagé ku dugg nga partagé ku dugg nga partagé ku dugg nga partagé ku dugg nga partagé ku dugg rek nga partagé ku yëg li xew Sénégal te mu naqari la rek partagé la na partage yaatu 139 139 partage 146 146 partage 157 157 partage ku dugg na nga partagé ku dugg na nga partagé partagé leen partagé partagé leen Papis Diagne partagé leen partagé leen bàyyi leen kër yi partagé leen partagé leen partagé partagé partagé partagé Famasila partagé partagé partagé partagé Malbec partagé 184 184 partage partage partage Mamadou Sadio Manga 191 191 partage léegi fu ñuy rusee sa partagé ay saaga xewi na moment bi gatsa gatsa la partagé leen léppay dem day saw léppay dem doxot lépp lépp lépp da koy partagé partagé leen réew mi ni mel partagé leen moo fi toll ku dugg na nga partagé ku dugg na nga partagé voilà ñu waxtaan bu matee mat nañ deux cent et quelque nañ waxtaan ku ñëw dabe ku mënte ku tardé kaar bi boo ñëwee nga xool sa arakaar ba fa mu nekkoon nga taxaw fa lijjanti voilà Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal Senegal, Senegal, jurum ñaari kabar la def Senegal, jurum ñaareel bi moy Senegal yi moy jurum ñetteel bi yen lay waxal yen ab kilifa bu nek ci bir gendarmerie xawma armée xawma police taxaw na wax kan moy général Moussa Fall senegal yen lay waxal de kilifa mo taxaw bind livre ci général Moussa Fall. doomaraam gi nekk ci moom Moussa Fall di wooye boppam jullit Moussa Fall moo taxaw démb ne situation bi ni mu fi demee nii buñ continuer mën nga cee ñàkk sa pouvoir état Macky Sall nee nañu ñoom dañoo renvoyé gis nga ci diggante renvoyé bi booyi Ziguinchor yi buñ xawee nelaw tuuti yéen Dakar ñi nga xam ne déployé nañu armée bi yépp yóbbu biir sor, ngeen waroon na lijjanti bir mi ci ay fraction de seconde du talibi, bi moment du talibi du fen moment bi responsable APR il faut ñu am ay otages ci ñom il faut ñu tey ay otages filmer sen day dóor len ba yew len ngod taxaw woo Macky Sall filmer ko sanni ko ci réseau bi ñu gis ko ñom ñep lolu il faut ngeen def ko pour am jàmm général Moussa Fall pareegul calme lañ wax au jeu niko Macky Sall waxé won je vous ai compris dem wuti ay armam nenañ renvoyer nañ ngeen xawa yap yap yàppi tuuti heureusement ba wa Casamance comprendre nañ que ni Ousmane Sonko bul tok dakaru bul demati fen togal fofu buñ démé ba gis né boy setan nañu ñu sacrifier man ak nu mu dinawut démé dina wut gang ñu traverser frontière Ousmane Sonko fuñ la fekk dinañ la yenu andi la Europe gi doto demati ila yow mi diini Sénégal na lèr pour muy clair général Moussa Fall nak la di wax taxaw na waatal na Marème fay Sall ak Macky sàll ci armée bi laa jóge nii armée bi nag ñooy wax de booy nañu jóg dëggal seen bopp matin midi soir équipe matin équipe midi équipe soir équipe nuit ngeen jóg dëggal seen bopp saccager réew mi xoolal quincaillerie yi bitik bu dara taxaw ravitailler leen seen bopp ci mbedd mi cocktail Molotov ravitailler leen seen bopp ci mbedd mi xeex bu amee kenn amatul loo moom militaires yi dañ leen di entraîner ba ñu tàng jër dëkk bu ñu leen tuur ñu ëmbal waa dëkk ba yépp moment bii ñu toll ni kenn amatul jabar joo moomal sa bopp ku waay jekku kattal lu leer laa leen wax moment bii sege bu ma nee ku waay jekku fu waay jekku kattal nag mooy lu waay jekku na toj parce que ñoom ñoo ko bëggee noonu comme dañoo yor gendarmerie yor police ñu ne taxawuñu ci sécurité gor bi taxaw ne leen ay sàcc ngeen moom la ñu jël armée yëpp incliné ko ci moom benn nit armée lëmm ñu jox la état nga jël armée lépp lëmm yow surveillé woo ab dëkk yow jéemoo aar population nga jàpp ñëpp jël lépp jàpp ñëpp toroxal ñëpp di rey suba di rey guddi di rey bëccëg ba pare jël armée bi di topp benn gor boo xam ne mënoo ko topp ci ay papier mënoo ko topp ci lu lu lu lu lu lu injustice bañ mënoo ko topp ci dara lu dul lenn dong ay sàcc ngeen ay sàcc ngeen nit ñi bëgg ko bëgg koo fal comme ni ngeen faloo woon ngeen taxaw ne dee du ci am jël armée lëmm di topp benn nit ba général Moussa Fall ñu dàq sa ndey Casamance nga ne wax nga ak Macky Sall da ngay jaar biir Gambie duggaat biir Sénégal actuellement nii nag may wax ak yéen armée nee nañ ma Moussa Fall taxaw na carrément nee na gaayam yi Moussa Fall nag bu ñu mënee wër ndeyam mooy cible numéro un. wut leen ay fetal ñu jàkkaarloog Moussa Fall katt ndeyam bal yi tàkk man ancien militaire yi laay laaj waa yéen ancien militaire yi yéen ñi génn armée da ngeen di toog seetaan ñu gars yi di ñu dóor ay bal nii mais yéen noonu da jë lan mooy problème bi yen xam ngeen fetal xam ngeen lépp ancien militaire yi dimbali leen ñu ngir yàlla ngeen jóg wax ak ñii Moussa Fall benn nit mu ne léegi yéen Ousmane Sonko bés bu ngeen demee di ko jëli fexe leen ba kafuyaas am ngeen dóor ko bal mel ni ku ko gaañ ne woy dañ doon nangam même buy dee sax baax na lii ngeen toog ngeen ne da ngeen koy seetaan bu leen yeboo ngeen xam ne li ngeen di bañ ci ñetti fan wala ñaari fan barke alxuraanal karim nar ngeen ko dund ay ati ati ati ati at parce que lii ñoom bu ñu fexee ba suul nit kii ñoom seen adduna yëpp nit kii mooy seen problème parce que lan nit ki bu ñu xësee ba bu bu bu sénégalais yi góorloo ba wàccee ñu ba ñu des ak nit kii ñun ñëpp ci kaso yi lañ jëm léegi nag ñoom minorité bi dem ci kaso yi yéen ñu tëj 17 millions de sénégalais ci kaso ciel en euh, prison à en ciel ouverte mo gën quelques bandi rek dem kaso loolu lay laaj ndax da ngeen ko bëgg dundu ay at ndax da ngeen bëgg a dékku ndax da ngeen bëgg a frontière ndax da ngeen bëgg a dem di tukki dëkku jambour yi ndax da ngeen bëgg a mais yeen li lan la lan la lan ngeen bëgg te ñu wax leen lan ngeen ti ñu wax lañ soulèvement populaire ñepp genn wutali palais Macky Sall na fi joggé tay ma nga famu tok di recruter ay nit di len solal ay tisset parce que dafa yor ay gan Macky Sall mëna a taal réew mi di def lu ko neex ba pare di invité ay ganam bir xawma ma no xawma fan. ngeen tok di seetaan mu jël ay jeunes di wut ay tisset yu mu len jox naan daf len di financer di yëkëti seen carte d'identité di jël ak yu kenn xamul ben Macky Sall dëkk bi am lu mu am nit yi fi nekk yëpp bu lamb wote ngeen genn jeune yi mu melni yeen sen avenir nit ñi liñ leen di wax ay foola mais lan ngeen comprendre wul lan ngeen comprendre wul lan ngeen comprendre wul lan ngeen comprendre bu auto daw auto yi ngeen ya ay camion citerne nan ngeen mën a camion citerne ngeen romb ko fa bala may dem ma deg yenn journaliste nan len way li ngeen di yak suñu alal la ku manke dépense dem fa duñ la fajj yeen médecin yéen médecins yi gor yi nga xam ne ñu ngi ci hôpital yi di faj dégg ngeen Casamance ku fa gaañu bu ñu la yóbbu duñu la faj yéen médecins yi ngele ngir yàlla déserté leen seen place ngeen génn dem faj ji ñi nga xam ne yàlla moo leen boole ak ñoom. yàlla boole leen ak koo xam ne ab woyu la taxaw di rey seeni doom ngeen toog bañ seetaan xale yi ba xale yi ñu leen di jël di leen sànni ci mbalit yi di leen sànni ci mbedd yeeg fu ne yéen médecins yi ngeen nekk ci réew mi. marocains yi de ci yéen lañ jànge defee formation def lépp. ña nga fële di lijjanti waa Maroc sénégalais bu ñu fa yóbbu ñu faj ko seen xalif général yi ku feebar ñu yóbbu Maroc waa Maroc faj tey seen doom yaa ngi nii feebar yéen a fi daq xappar ñu ko dem wuyu ji màggal waa màggal yaa ngi nii faale wuñ ñu lijjanti ñu ñuy dee ci réew mi at mu jot ngeen dem wuyu ji waa gàmm waa gàmm yaa ngi nii faale wuñ ñu lijjanti ñu at mu jot ngeen dem wuyu ji ziyaaru baay waa baay a ngi nii faale wuñ ñu réew maa ngi nii nag fii lañ toll muy lan nekk benn nit mu taxaw di ñu rey amul kilifa gu nangoo yëy yàbbi amul ñu mëna sipu sisu ak liñ ñu doon wax ci seen mam yi dañoo bañ kon ñoom ñu ngi bëgg a seen bop li nañ ko wax ta dé buñu feeñul tamit ñu ngi bëgg a seen bop bu dé dañ leen doon sosal tamit ñu ngi bëgg a seen bop réew mi Macky Sall waru fe mëna nekk ni top ben gor gor ge amul fu mu rëcce ci lu toll ni Sénégal ben waxtu ngeen taxawal 4 milliards pour tabax juma 4 milliards pour ngeen tabax juma Ben waxtu mënu leen cee taxaw goral ben gor bu ay nit top armé ah problème a ngi bëgg am kat ci yeen nattu yalla mi ngi bëgg wacc sen kaw mbugal a ngi bëgg wacc sen kaw boy nak yeen la waxal li wonana na magi rew mi ay doma ram lañ ay dooma ram lañ ay dooma ram lañ xalé yi ñoo fi hal di bañ toroxal jam toroxal gor magi tok ne pat mel na ñu bëgg fu ñuy toroxale gor mel na ñoo xam ne toroxal gor mooy doon seen teraanga waa kan moo mës a gis lii kan moo mës a gis lii benn Moussa Fall ay militaire ne ci réew mi ay punkali mbër na ci réew mi ku ne ne ci réew mi ñoom ñëpp ñu préféré doon ay doomaraam ci kaw suuf ci loo xam ne liberte wu askanu lëmm ñu lànk ne duñ ko def ay nit te tenir leen fi rek ne dee du ngeen rëcc militaires yi ne fi rusu leen Mali rusu leen Guinée rusu leen yeneen dëkk yi ñuy xool yëpp ngeen toog ne yàgg rek mel ni ay diriyange wala yéen dangeen ngeen bëgg ñu génn ci yéen histoire bi du ngeen jéem a fexe dugg ci biir li ngeen di bàkk yëpp seen yi ngeen di taxawal ku taxawal tàkkusaan askan wi ñoo la gunge ku fi teg baas askan wi ñoo la gunge. ku fi tek concert askan wi ñoo la gungé ku meeting askan wi ñoo la gunge askan wi bëgg dara benn minorité bu tuuti képp leen sonal leen wit Moussa Fall tay mu ngay dugg ci biir Gambie Adama Barrow lo wax ci lolu Gambie yi ànd ci lolu Moussa Fall lan lay wuti frontière u Gambie jóg ngeen tal fep jog len ngeen tal fep camion citerne bu ngeen dajal ben camion citerne bu ngeen tal bala mo fay armée dina lijjanti nan la koy fayee amuñu sapeur yu ko mën a fay nee naa leen 4 avril bu jot dañuy luye ay bagages 4 avril bu jot dañuy luye ay bagages yéen nii la ñuy wax ak yéen ba kañ à bon entendeur wasalaam wax naa li ma xam nag maa ngi wasloo àq nag waaye Ousmane Ousmane Ousmane yal na la yàlla tëj ñu oo tëju ba kenn du mën a am accès ci yow na nga ma moytul nag opposition yeewi askan yu nga àndal na nga len moytu bu baakha baakha baakha baakha baakha baakh nak Usman songko ya la wax nak lutax Ousmane Sonko yow lay waxal yewi askan dina la wax lutax tax la nga moytu len bu baakha baakha baakha baakha baakh dina la ko wax nga ñew wa salam ba suba ak ndax man dama febar dama son nak limay yek man ak yalla rek ko xam lu dis gan waye nañ len dem dina metti ci nak li setan len ko ba mu jall rek dina metti ci yeen Moussa Fall li mu bëgg bu ko defee ci 17 millions de sénégalais Moussa ben Moussa Fall amul ben militaire bu mëna taxaw dëgg ndayam bal comme ni muy def nit ñi Moussa Fall kenn dootu ko waxati. ñu waxati lenen yeen militaire yeen seen biir bu lambay ñangé ba ñang yeena wara taxaw tegalante ay pistolet kenn ku nekk allumé sa morom ñu taxaw régler problème bi mu jeex yeen ngeen taxaw ne dé du ngeen def wassalam ñu ngi len di xol nak ñu ngi leen di xool ñu ngi xaar ak seeni 4 avril yi di ñëwaat ñu xool nan ngeen di def ak ñun ndax da ngeen di seetaan kii mu toog ci réew mi ak biiram bu rëy bi dekkew fi dara taxawaalu sàcc ak luubar ak juróomi at ñu jox la am réew nga ne deuxième mandat nga soxla taloo liggéey ba jox la deuxième mandat ñu ne da ngay def dara jéemoo dara lu ay jakarta ak lan di ñu yenaloo poor yenaloo ñu poor waaw gor taxaw na ngeen ne dee gor du fiñ mën a nekk yéen daal noos daal moo intéressé askan waaw askan wi gis na keneen ngeen ne du ci dal sëriñ si ne goreel jaam yi daal ñoom alxuraan waxul ci loolu dara ah baax na Casamance maa ngi seen ginnaaw wasalaam wasalaam segem Dakar a mënoon a dimbali Casamance yéen a ngi toog bu may wax dakaar nag waxuma ñiy xeex ci mbedd mi de man doomaraam yi nga xamante ni ci télé yi lañ nekk ak làmb yeeg sabar yeek tànd biir yeeg waykat yi ñu laay wax doomaraam ñooñu ñooy doomaraam yi kon jàmbaar yi nekk ci terrain bi di xeex waxuma ñooñu waaye doomaraam yi toog seetaan leen ñu doon minorité ci réew mi ñooñ laay waxal te actuellement ni kenn ku nekk doon jooy dund gu seer actuellement ni kenn ku nekk di jooy orange actuellement ni kenn ku nekk doon jooy que ni dañuy sàcc seen crédit yi kenn ku nekk di jooy courant bu seer kenn ku nekk di jooy ndox mu seer kenn ku nekk di jooy ndugg mu seer kenn ku nekk di jooy passe alimentaire yi dafa seer dafa nii dafa nële moment bii ngeen waroon a profité ravitaay seen bopp mu mel ni événement naar yi bitik du taxaw jëpp nañu dajj ndeyi kenkaayir yi bitik lépp station yi lépp ñu dajj taximan du daw ku daw ñu taal ndey sa oto citerne bu daw ñu taal ndeyam dara du yëngu kenn du bougé mètre deux jours rek ñu réglé problème bi ngeen ni da di bàyyi Moussa Fall ñuy fomm ka fommaat ka indee ka indiwaat ci seen yoo xam ne médecin nee na leen dara doxul dara baaxul. ah bon entendeur